bi muy génn bër gàllee ngi nii de doomu Bambilor bi kër Njaay loo déen waa gorom 1 gorom 2 wéy mbaam waaw foo foo daal bàyyi fa des mbër ñu ngi lay bëggee champion bi waaw ah, caat delloo bëggee delloo bëggee fu jëm nii waaw open press ba lañ jëm nii mooy loolu yaa ah, yoo jëli ko waaw kon yàgg na nga yëg sa fas <laughs> wa ma nga bëgg yëg sa fas wa. waaw champion ba nga la te nga daanu la. laay lay laaw. mbaxana du dafa leer mbaxana du fekk coono borom. mais sax buuri nii lan mu ngay pilote. di uti ba. dama waa dee na ngoog. ziar naa leen. <laughs> ah ngay dem. doomu Bambilor baa nga war sa fas wa ku ko xam-xam ni doomu ndayu mbayaar la bu waree fas wàcc na waaw mbayaar du xaddi doomu ndayu mbayaar bu waree fas rek wàcc na fas yu war yi nu mu tudd fas yu war yi nu mu tudd yaxi Bambilor la la tudd mhm. mais maanaam giiru fas yi am xëcc la wala ah man daal xam naa ni weex na daal ah. fas mbayaar la xàcc la ndeysaan gars yi ne leen champion bi xacc la war doomu bambilor bi. waaw moo max leng si incha allah. làmb ju nar a neex ñaari xale yoo xamante ni lamb bàyyi na a xel am na lu def si lamb. waaw dama di gaaro gaaro ngoog ñu lay bëggee. gaaro champion bi. waaw dama ne mu ngi wër géew bi. champion baa ngi wër. ndeysaan mais ay ndaanaan lan bilaay walaay bilaay sama doomaa moo sol couleur almaañ bi ne la jaat jaat si ñool sama doomaa moo sol couleur almaañ bi ne la waa jaata ngoog moo koy jaat Bambilor a ngoog champion Bambilor bi doomu ndayu Sa Thiès doomu ndayu Garo Gar champion la si nag waa Garo Gar ñu ngi lay bëggee bi. lu la laaj waral teewaay bi ndax yéen a xam ne yéen a bokk zone te bu dul dara nee na mais dañ la bëgg a laaj comme yàq baat bi moo leen ko préparé. waaw yàq yi day paree la nga dem war a paree quoi sëñ teewaay bi nag mooy ñoo bokk commune de Bambilor moom tamit bu nekk nit ku baax su ma xawee damay day damay ñëw jàpp si lépp wër na yàlla dama am retardement mais maa ngi si jógal bu wér mais maa ngi ñaanal yàlla ne yàlla may ndam rek waaw mais yow gis nga ne yàq Bambilor instant yi toll nii lépp jàmm pare na waaw instant yi nice xel dal na quoi mais nag yow sa combat yaa fi ñëw foo toll si waa Jaay waay ah comme dab rek. mu ne ginnaaw bi nga liggéey sa combat Ama Malika nga grand combat yaa fi ko foo si wàccaay ak sa waa zone. waaye saa yu naa suñu mbokk di waaj bu baax waaw ñu ngay waaj comme lu raw liñ doon waaj avant bu ah. waaw am nañ si jëndi cote sa quoi wàllu mobilisation bi ku ne xam na ne gaaroo gaar ku ko wax mobilisation wàllu mobilisation bi foo si waaw ñu liggéey bu baax loolu moom ñu liggéey bu baax di lancer appel autorité yëpp ñu ñëw jàppale yaay quoi samedi bi ñëw la ñu ñëw jàppale ci lépp léegi loo yóbbante Vito sa adversaire Vito yàlla nga yàlla may wér may ma ba jour ba mu daanu quoi. waaw incha ñu ngi lay gaaro naka jàmm ji naka jàmm ji taw fee alhamdulilah waaw ñu dañoo a xam lan moo waral teewaay bi ak sa diggante ak Yaay Bane Door waaw Thiatou Nguéweul li waral teewaay bi sama diggante Yaay Bane Door dafa a moom parce que Serigne Touba a bàyyi lépp lu ñu am rek teewal ko ndax yax yi mérité na loolu daal bi noo gisee yax yi waaw yaxu yax yi waaw ni ma ko gisee état bi baax na liggéey na préparé na am na ay mbokam boo xoolee yàq yi poids bu naan jël ak état boo ko gisee ni mu daggee ne nga war a xam ne léegi si biir bu baax da ngay ñaanal yàlla yàlla may nga ndam rek ndam lu sedd guy. waaw mais yow depuis sa combat ñu ngi jëlaat nga mën a grand combat depuis boobu ba léegi nga jëlee si ndam lu rëy mais ba léegi ci sa Afrique la Abdou Gueye si lan la nekk. sama combat boobu daal taxawoon na mais après xam nga rek boo yee ñëwee ñëwaat mais Abdou Gueye bii tudd xam di liggéey rek mais da ngay wàññi dóor yi nag. jaadu ngeen dama mel ni yow waaw mu lay yati baax mi lor lor mu lay bëggee bu wér maa ngi delloo ziar bu wér a wér waaw di la wax tey jii noo gisee bés bi sa doomu ndey waaw kenn du la laaj nag lu waral teewaay bi ndax ku ne xam am la a ñax mais comme tey jii nii noo leen préparé ak noo leen waaji si waaw teewaay bi moom lu ko waral moom comme li may wax sam suuf rek saa yi moom mu nag moom affaire lu am moom sama grand frère la quoi waaw moom ko ñoo bokk mais combat bi tam aussi ñoo ko waajaloon doon dañ nañ coono quoi ñu koy ñaanal le 14 incha allah bu demee esaat yàlla suturaal ka may ka tax bu koy njottam. amiin waay amiin. yaa ngi jóge si làmb depuis boobu ba daan ki nga xamante ne mooy Karbala des sept combats sept victoires loo xamante ne lu jafe boobu ba léegi déggaatu Sa Thiès Sa Thiès lan la nekk. waaw maa ngi ñëwee si combat presque bu ñu bëgg a def 4 mois. waaw parfois nag promoteur yi contacté ma proposé ma ay adversaire mais gars yi dañuy demaat ba si biir ndax ay nañ ma xoolal keneen loolu moo xaw a yéexal affaire yi quoi ñu ngi suñu rukk muy entraînement ñu ñu war a def lépp di toog xaar combat kon ko yàlla dogalee rek loolu noonu dañu mën a àggale. waaw ñu ngi lay wax bonne bëggee bu wér. ñu ngi lay siyaare baacaat. di la bëggee yow moom du la wax lu waajal lu waral teewaay bi mais dangay wax noo préparé sa doomu na Yaxi Bambilor ndax ku ne xam na ni yéen a ne woon quoi. waaw mais Yaxi Bambilor koo gis xam ne pere na wàllu entraînement muy wàllu contact xam nga tey bu fas yéenee ñëw fii sa bonne presse bi xam nga fas yéenee yëngal waaw moom gaynde la quoi bu ñëwee moom gaynde la wane di ko ñaanal ndam rek waaw yàlla may ko ndam quoi. mais doomu leen dëkk boobu ba léegi nga jóge sa combat yaa bourse waaw. boobu ba léegi déggaate gudd la xamuñu si loo nekk nit boobu rek. mën na puusul waaw boobu ba léegi gars yi ñu ngi jël avancé di naaw rek yaa ma gën a xam nga làmb léegi ni muy doxee quoi gars yi mooy doon tamit moo bëri moo tax combat yi xaw a duré quoi. mais est-ce que est-ce que du dangay wàññi dóori tamit. waaw xam naa dóori laay wàññi rek mais gars yi gars yi Dakar yi yëpp laay laaj ko sax mais gars yi nan ma jël wàññi naa dóori yi. instant yii dóoree du ko. waaw ñu lay waaye mooy bëgg waaye nooy def ak gaan nga jàpp waaye sant bu baax a baax waaye ñu mën a gis fii tey nga teew ñu bëggoon xam nag moo waral sa teewaay waaw ñun lii lañ mën a def rek pour fay bor bi waaw parce que yaa ma gën a xam li xew dañu am combat ñu waaj a def ba mu jeex xam nga kon day jaadu bu mbër bi xewlee ñu ñëw taxawu ko quoi mais ñu lay wax yow noo gisee xibaar mi loolu ay ah instant toll nii waaw nice ah par rapport ak mu fi mujjee jógee sax tey gis naa développement bu baax a baax a baax waaw dañuy ñaan borom bi am ndam rek yàlla ko suñu borom defal ndam ci bar suñu waaw yow dëkk depuis sa combat ba léegi yaa am su ñaay dégg nga te gudd la si lañ nga nekk. waaw man moom maa ngi suñu kuy rek de saa doon bëre ko pour bëri waat moom mais incha allah bu bëree ba ci bëri incha allah. non métti ku xam xam ne métti moom làmb dara du si yomb day ñëw day bëri day xeex. te amateur bi muy nam bi su mel noonu. kon boo nee pare woo pour bëri loolu dañuy def ko ragal yow dafa war a bëri. waaw parce que amul daal il faut régler pour mieux sauter. waaw dafa am fu ñu jógee te am mbooloo moo ñu toog tamit quoi. waaw dañoo bëgg a xaaral am rek incha allah ba maa yaakaaroon na incha allah rabbi waaw. ñu ngi lay bëgg waaw lay ziar. waaye ku la xam ku nekk. xam naa waa bu baax bi wax. nga yàgg ku ne xam na ni départ la ñu lay wax ni combat bi trop préparé Yaxi Bambilor. waaw préparé nañ ko ci. li war ci moom def nañ ko ci moom. Hmm? contact yi li ci war def nañ euh, fu daan dem. yàlla daañu may ndam. li des nag mooy yàlla. dina sant aussi tamit. parce que ngay sant mag boo xamante ne. loolu ndaw du gaaw. boo bëggee réussir da ngay am ay tolof tolof soo si jógee moo demoon nekk champion mais jóg rek dem ku ko ci defee da ngay toog moo tax boo jógee di am ay soo ñaanee yàlla war na a nekk champion te man gis naa ci yow champion. dëgg la donc li di ñaanal yàlla si yàlla may ko nag. parce que ku ma jox cër ma respecté doon def nañ ko suñu zone yéen ñi suñu doom ñu ngi defoon da ngeen def ko paase. waaw loolu mooy mooy Père Khalifa ndax ñëpp ñu nekk si làmb xam nañ ko am na loo ko si làmb ba tey jii mu ñëw format bi nga xamante ne mooy commune de Bambilor équipe di jàppale xale yi moom moo yi ngeen fii gis nii yëpp père waa nag bëgg waaw di kontaan rek man maay Khalifa Thiaw ancien champion jandeer yëpp parce que maa fi nekkoon drapeau bi waay ana waali wali yar njaay xanaa li du neenooy ay waay mbaro wali yar ñooy xanaa li du neenooy waaw waaw ay waay mbaro wali yar njaay xanaa li du nee nooy roowali yaa nooy xanaa li du nee nooy friwley ñaalooy ñaala gay na nga daan jël tey la sama yaane ngan ñaayi léegi jëgi jër naay de dama lay woo xanaa lii du neen baroo wali yaay xanaa lii du neen ay waay yaxana yax kaay sama baray saa gees noo balgaay baroo wali yaanooy xanaa lii du neen ay waay baroo wali wali yaay xanaa xanaa li la nee nooye mbaroo wàll yaa nooy ana li du nee nooy ay ay ana waali wali yan gaayi xanaa sama li du nenoni maro waliya ay moo ko lay yaxu ma bi lor saa jeesooy bakk na la doo jaay tey la sama yaa de ngaan jaay léegi léegi ay saa jees mër maa ngeey saa jees sama waay ngaa

caato yi caato caat caato caat may sanaam demba ko du faar geen te ngoone faar balax maay ay caat dama lay way yaay borom yoo fi géej jaato jaato jaato jaato dem ak kodu baalu dem ko ne par bala baay ay jaato sama waay gaay xanaa li du nee nooy xanaa li mooy. waaw maa leen di bëgg. waaw ñu leen di présenté kii nga xamante ne mooy adjoint coach mi nga xamante ne moo nekk fii nii commune de Bambilor muy Adama Gueye di lakk si père Khalifa Diaw nekk booy ñu lay wax noo préparé sa poulet Yakhya Bambilor. waaw sant yàlla rek sant yàlla dañ koy waajal comme niñ daan waajee wax dëgg yàlla mbër moom combat bi entraîné na ci lu métti waaw parce ñun ñi nga xamante ne ñooy nekk moom montagne. di nekk moom suba gi saaw gëm ne mbër entraîneur ci combat bi. léegi kon loo leen loo wax adversaire am léegi. waaw adversaire am comme li muy wax rek nag mu koy ñaanal wér mu ñëw ci combat bi xam nga li ma wax lu def ko ndax yaakaar naa ne bu waxuñu ko keneen nañuy wax mais kii moom gaañ loolu bare nañ. mais ñu gis ne waa bëri yi. waaw instant yi tool yi. ñoom ñëpp danoo booloo bokku ndey bokku baay. te yow nga joué si rôle boo xamante ne dafa am solo. lan moo la yokk confiance ba nga mën a dox loolu. waaw loolu moom wax dëgg yàlla dañ koy sant yàlla euh, te yaakaar naa loolu itam lu ñu yàgg a la ndax tey boo xoolee zone 7 bi ba dëkk yi nekk yëpp ñu boole def benn école loolu doole la te yokkute lay doon ndax làmb dafa nekk loo xamante ne tey dafa laaj bu yaatu. boo xoolee boo déggee Géejawaay dégg ñu booloo nga dégg Pikine dégg Palais bi ni mu mel tey nga ñëw commune bu Bambilor tey ñu doon xeex pour ñu booloo seen ak yeneen gars yi ñoom Kaaroo gars yëpp seen bu rëy boo xoolee ñaari déer ak borom borom deux ba Sangalkam bëri yëpp dañoo ñëw def benn école de lutte loolu mooy doole ji moo fi feeñ nii tey te loolu lañ doon ñaan doon ci xeex doon ci dox. yàlla mbaa mbaa autorité yi ñu ngi siy taxaw rek. waaw autorité yi gars yi ñu ngi commencé di ñëw ndànk euh, ren maire subventionné nañu te tey yaakaar naa ne déwén sax la a doon mais ak démarche yi ci def mu gëm ne lim lii rafet la kon fi jaar dina ci dugal loxo moo tax mu subventionné nañu trois cent mille mais ñoom di woo ci combat bi dañ leen di indi seen doole jël gaari fay bi booy mën a dem ñu paree ci loolu Garo Gare day bëre le 19 ñoom ñu ñëwaat jàppale ko ñu demal ko stade parce que fii champion mën na fi génn. dafa leer mais ñu lay déggee di la wax bonne continuation. noonu la demee kontaan ci yow yow it mooy loolu la. jaajëf sama waay gi. maa bëgg nga présenté wax yow la man la Ndiaga Diama Sène. tey dama fii ci invitation bu Yatia. voilà mu nekk un jeune champion donc mu ñëw invité ñu ci open press bi ñu bàyyi si jiite yëpp yow plus première fois ah, ñu ñëw ci yu mel nii. dëgg la mais loo si seex ba ba mu war laa mën a may confiance ba nga mosoo def lii nga ñëw si bisam. waaw xam nga euh, dafa nekk un jeune champion boo xamante ni tey dafa euh, soxla ñu pousse ko ñu jàppale ko pour mu am parce que ñun bu fekkee seen i Bambilor lañ dëkk. doomu Bambilor xewle doomu Bambilor daw di ut ndam kon ñun ñoo ko war a dóor ñoo ko a teg loxo su ko defee donc ndam loolu nga xamante ni ñu ngi koy sàkku mën indi parce que jamono ji bu ñuy wax Yaxya Tay dafay dem pour représenter commune bu Bambilor kon yoon la ñu bàyyi suñu yëpp yëpp yitte yëpp ñëw fas yéene ko jàppale kon ñu ngi lay jaajëfal jaajëfal